Beaucoup de téléspectateurs VA TV euh, nous leen nen ñoo am mbégte ak contentement di m'attaquer ak yéen seen euh, numéro bu seen émission sportive euh, de vision vision sport alors tey nag suñu émission tey bi dafa dafa spécial puisque nous, dañu siy euh, ak koo xam ne kii dootuñu ko présenter dans le monde du sport muy kan muy euh, Abdoulaye euh, Diaw euh, alors bu ñuy jël statut du ko teg si Abdoulaye Diaw am na ñuy wax Abdoulaye Diaw journaliste sportif ñu ñuy wax chroniqueur sportif am na ñuy wax reporter sportif mais man mii dama ne statut yooyu statut yooyu xaw na tuuti ci man damay jël rek Abdoulaye Diaw moomu ma dugal ko dans le cercle des personnalités sportives oui des personnalités sportives euh, ndaxte koo xam que les euh, politiciens sont dañ ko dañ ko soxla dañ ko sopp euh, koo xam homme de culture bi daf ko sopp daf ko soxla si lu muy liggéey rawatina ñun sportif yi kon kooku war nañ ko mën dans le cercle des personnalités sénégalaises des personnalités africaines voire même mondiales Abdoulaye Diaw ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu ma lay fay Abdoulaye euh, Diouf lu yàgg dëgg la maak yow bi ñuy ànd yàgg na booba ci télévision bi muy waxtaan ak yow tey euh, sosoogul euh, te comme tëngéej ngeen jóge tëngéej dama fa am ñaari kilifa yu mag yoo xamee ni mën na ëpp nañ ak sax ñaar mais ñii dama leen di jiital kenn ki dëddu na bu yàggul Ousmane Sène Blay yal nañ ko ëpp at mu nekkoon kilifa te mat ko mu nekk une des toutes première ancienne gloire de Tengue Ousmane Senblé. je l'ai vu jouer très jeune ci équipe de Tengue bi Espérance Rufisque Espérance il me semble mu la première équipe rufisquoise dans l'élite du football mon Ousmane Senblé. Ousmane Senble Blay Mais il a eu Alioune Diop Batte batteur qui fut mon entraîneur à Kaolack bi may arrêté football je suis mon entraîneur à Kaolak, manek à Radio Kaolack di jouer ba war arrêté un jour ba te Alioune job, était mon entraîneur moom tamit nekkoon ku neex a dëkkal ba man yéex na xamni ni la tellement dafa engagé won ci les affaires kaolackoises mom la poète bi di wax euh, euh, euh, dëkk ci dëkk bi liggéey dëkk bi moko ko gën moom la Alioune Diop Bata def à kaolak ba niru Kaolack waa kon may nuyu Bata ah di nuyu saint euh di nuyu pendant très longtemps aussi un très grand bastion euh, du football sénégalais bo yégué ci bobu filière di nga rombu ñom Soufi Ndiour wàcc etc. ba ci ñom Thierno ba ci ñom Pape et du tumuranke kendo Tëngéej dafa barkeel moo ko tax nekk entrée Dakar Tëngéej mooy porte Dakar waaw mooy entrée dakaar di sorti dakaar ba tax na lu baax rek moo fay dugg lu baax rek moo fay nekk am mbégte nag yi leen dal ci lii nga xamee ni Ablaye Diouf yow moom euh, waxtu la neexee fëgg sama kër waxtu la neexee fekk si ma ci ànd bu yàgg moom laa wax ni dëgg la mi ngay bëgg jege mbokk ànd bu yàgg. jërëjëf euh, euh, Abdoulaye Diaw xamoon naa ne noonu ngay tijjee waxtaanu tey wi alors may fàttali ne. Euh, suñu waxtaanu tey wi ak euh, Abdoulaye Diaw dama ci ànd ak euh, sama confrère di Pape Dieng Pape yow dama lay bàyyi nga nuyu mbokku téléspectateur yu VA TV suñu émission sportive di dalal tamit suñu gan gu rëy gi di Abdoulaye Diaw. Pape Dieng waaw salaamaaleykum mbokku téléspectateur VA TV la télévision de l'espoir. waaw kon juuf mu waxee tey dañ ñëwoon tey seet si tey Abdoulaye Diaw te buñ dégg képp ñu dégg Abdoulaye Diaw. sur le plan sport ku ko dégg rek sa xel dina dem ci lu bare bare bare parce que parce que lu si sport kese lañ ko soxlaa tamit soxla nañ ko ci wàllu bu bari wàllu culture wàllu politique wàllu sport domaine yëpp sur tous les domaines soxla nañ ko ci tamit te tamit euh, moom lañ seet si woon tey nii tey di ko ñaana dem yàlla bàyyi ko si kanam a kanam yàlla may ko wér ak wéral li cëral di wéral cëram yëpp di ko ñaanal wér ak gudd fan moom lañ seet si woon tey mooy Abdoulaye Diaw ñu ngi lay nuyu bu baax baax baax di la seet si. jërëjëf Dieng. Euh, kon defe naa ne euh, mën nañ dugg ci ci waxtaanu tey wi alors euh, sujet yu ñu war mën na waxtaanee ak ku mel ni Abdoulaye Diaw bari na waaye dañ si tënk rek ñetti sujet yoo xam ne yi daanaka dañu def actualité dans le dans le monde di sport. Euh, alors bi def actualité sax euh, ñëwagul waaye euh, daanaka def na actualité bu yàgg la la coupe du monde de de football bi ñuy joué Qatar dina ñëw waxtaan nag moom tamit sur le ballon d'or avec la haute position de de Sadio Mané saison bi également au Sénégal la saison 2022 2023 dinañ ci aborder euh, sujet bobu ak euh, Abdoulaye euh, Diaw ak que lo xamné li yenen point si le temps nous le permet Inch'Allah, dañu daañu ko waxtaane ak Abdoulaye alors sur le premier sujet celui de la de la coupe du monde Abdoulaye Diaw mm. on est à 18 jours de cette grande compétition alors observateur bu bu mel ni même sax buñu Sénégal de participer si si coupe du monde observateur pour euh, toll à 18 euh, jours du début de cette compétition euh, lan ngay sentir. j'ai souvent dit l'équipe championne du monde en titre c'est moi France m'a gagné coupe du monde en 2018 avant France en 2014 Allemagne a gagné avant Allemagne en 2010, Espagne a gagné. Donc, nous avons les trois derniers champions du monde. Espagne, Allemagne, France. Qu'est-ce que nous avons à la Cannes, gagné. <laughs> L'équipe championne du monde, nous avons Cannes, nous gagné. Parce que, si des footballeurs, di ressentir football, euh, de xool un environnement football, Coupe d'Afrique des Nations moo gën Coupe du monde Coupe d'Afrique des Nations moo gën a metti coupe du monde ba tax na li ma doon ruminer au fond de moi dama lire barki démb euh, benn interview spécialiste bu nekk Maroc ki di euh, marocains yi du dépayser au Qatar mu ni marocains yi du dépayser au Qatar man dama doon gën sore marocains yi mu wax moi je dis africains yi du dépayser au Qatar ça va être une coupe du monde spéciale suis une coupe du monde bi je suis coupe d'Afrique des nations xam coupe d'Afrique des nations da un rôle. équipe qui jouer de souffrir dana xaw tout tuuti d'ailleurs Mexico 1970 Mexico 1970 jour yi da nga leen nous en 70 De souffrir on jouait en plein soleil da ngay gis joueur bi xam nga da ngay euh, bu euh, ombre bi ombre day good mais bo taxawé ci sa ombre mu mel da nga taxaw ci ça veut dire que tu es en plein midi tu xol image du Mexique 70 yoy nga gis jour bi fay taxaw ombre am euh, mel naka ka bal mu taxaw ci tu joues en plein soleil donc il faut savoir souffrir ci 22e coupe du monde la nek 22e bi mo ci gëna ni ru kan ndax fañ ko évidemment la coupe du monde nak pour que mu nek pour que mu coupe du monde foog mu dem partout motax attendons-nous à la Coupe du Monde des grosses surprises. Attendons-nous à la Coupe du Monde des grosses surprises. Et aux Sénégalais, je dirais, vous avez fait une première Coupe du Monde, même en quart de finale. Deuxième Coupe du Monde, euh, on est parti de la Russie sur un goût d'inachevé. Le Sénégal est le premier pays bounu éliminé pour le deuxième tour au nombre des cartons ñun à Colombie à Japon nous Yam, point Nous sommes l'équipe la plus fautive c'était le Sénégal on a d'ailleurs rectifié si à la coupe du monde on a été l'équipe la plus fautive éliminé deuxième tour on a gagné la CAN 2002 en étant l'équipe la plus fair-play <laughs> là-bas on était la plus fautive fi on est la plus fair-play on peut gagner tout en restant fair-play alors. Ligue a une expérience parce que base de 2018 mi 2022 base de 2018 il y a un acquis ce n'est pas pour rien que l'entraîneur hollandais s'est félicité euh, du décrochage de notre match de 13h à 18h 19h. 19h parce que l'entraîneur néerlandais disait heure nous ñu pro programme programmé Sénégal dafa doon favoriser les Sénégalais déjà c'est un signal même pour que ko mecs 19h à 19h da nga dootul gis soleil mais tàngaay soleil, mais fa ba le soleil mais bon on va voir maintenant, moment tout à l'heure ça va être la coupe du monde la plus cadre la plus coupe d'Afrique des nations Les on y va ce dont je suis sûr l'Afrique se rapproche de plus en plus du meilleur niveau mondial spécialiste spécialistes dañ le continent, naan continent balay la coupe du monde gagner gagné Jeux olympiques Afrique balay gagné coupe du monde gagner gagné Jeux olympiques mais il y a des spécialistes qui perdent de vue que l'Afrique gagne deux fois les Jeux Olympiques. Nigeria a les Jeux Olympiques. Cameroun a les Jeux Olympiques. Et nous avons gagné les Jeux Olympiques. Nous avons les Jeux Olympiques. Nous avons gagné dans les compétitions africaines. C'est l'élite africaine qui s'est rapprochée du meilleur niveau mondial. Quand Idriss Ganegay et Salif, euh, et, et, Abdullah Diallo, partagent le même maillot que Mbappé, qui est champion du monde en titre, ils peuvent nourrir les mêmes ambitions que Mbappé. tu bokk un championnat ay Messi ay ay ay Neymar ñuy gis ci coupe du monde bi nga bokk ak championnat léeg-léeg nga adversaire partenaire tu peux nourrir les mêmes ambitions l'Afrique se rapproche Nous, ngi rapprochons. fi ñu war nañ fa les Jeux olympiques etc. Dit pourvoyeuse de grands footballeurs en attendant de gagner la Coupe du Monde on est euh, le continent est est pourvoyeur de grands footballeurs kon Qatar bi mën Afrique nek Afrique championnat du monde Afrique Maintenant, on y va le cœur gros comme on dit la tête pleine euh, avec des ambitions euh, yo justifiées par ce à quoi on a eu droit je lance un appel Nokia, yàlla ba les meilleures performances africaines c'est Cameroun, c'est Sénégal, c'est Ghana, qui ont été tous les trois en quart de finale de Coupe du Monde, il faut aller au-delà, il faut faire mieux. Voilà ce que diront les observateurs au moment où nous dormions cette Coupe du Monde. Euh, très bien. Euh, coach Pabien. Waouh, question, madame. Le fait que nous qualifions Coupe du Monde 2018-2022, nous avons la détermination. Waouh euh, l'école ko déjà bien qualifiée en 2018 c'était une équipe en devenir c'était une équipe en devenir euh, la Colombie nous élimine 1 à 0 au recul on s'est rendu compte que nous nous pouvions évité. éviter demain, toujours bon les match toujours di nga gis li tax nga éviter mais richesse bi la même base ñi def 2018 genn wàll gi ñu dañu servir d'éclaireur à ñeneen ñi fi nekk bon li ci des da fay nekk ay imprévu parce que quand tu vas à la coupe du monde li ci greffé dafay euh championnat yi door les entraîneurs ne sont jamais satisfaits de leur groupe amul entraîneur bu dem coupe du monde ni la j'ai la meilleure équipe possible non am am toujours lu manqué une équipe même quand elle gagne la coupe du monde am a lu ko manqué li ci des nak euh, dafa entre professionnels et aujourd'hui les footballeurs africains s'abreuvent à la source de ceux qui doivent gagner la coupe du monde euh, boo les footballeurs africains yi fii nekk di euh, Ghana am na ay champions d'Europe Cameroun yàgg na dégg ay lauriers et cetera on souhaite que Ghana def mieux que on souhaite que Cameroun def mieux que eto on souhaite que Sénégal a déjà fait mieux que El par le biais de de de Sadio Mane. Légui nak li ci dess touti mo ci dess parce que pour être nee na soo ci équipe ...un joueur de dimension mondiale nous inspirer tout le groupe le groupe dañuy fay nek en confiance comme si le groupe disait tant que nous avons celui-là tant que nous avons celui-là avec nous nous avons des raisons euh, comme on dit d'être ambitieux rien ne peut nous arriver euh, en étant avec lui ak comme on dit euh, l'environnement que je vais pas li ci top am la récupérer avancer dans dans le vide parce qu'il y a des moments où d'autres sont maîtriser groupe bi avancer dans le vide au moment de jouer jouer mais bon bon une base une expérience une coupe du monde déjà c'est comme on dit un patrimoine immensément important pour tout le reste du groupe alors Sénégal de 2018 à 2022 mu à la coupe du monde cela veut déjà dire qu'il y a un potentiel teg les ñaari coupe du monde teg les ñaari coupe du monde teg les ñaari finale coupe d'Afrique tu vois kooku du hasard ñaari finale coupe d'Afrique ñaari phase finale coupe du monde Légui groupe bi buñu ñu même bu fa entraîneur ba nekkul joueurs yi dana dana am ay ay ay poutre yo xamé ni buñu waxtané ci seen biir dal di génne la fa entraîneur bi daan génne tey jii loolu richesse au Sénégal te gëm naa ne mi ngi ci Cameroun ak Ghana. alors di fàttali ne. Nous euh, ngi émission euh, vision vision sur euh, VA TV la télévision de l'espoir. un entretien exclusif avec Abdoulaye Diaw alors Abdoulaye on reste toujours sur le sujet de la de la coupe du monde am si jot tout à l'heure Sénégal mi dem coupe du monde pour la deuxième fois consécutive yàgg nañu daw si li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique di yàgg di daw si fu sori si Coupe d'Afrique ba dem final ba jël euh, Coupe d'Afrique bi yàgg nañ tamit euh, di séentoo dem Coupe du Monde yàlla def ko en 2002 euh, si palmarès bi nga rappelé tout à l'heure mooy une quart de une quart de finale ñu delluwaat Coupe du Monde en 2018 ak jaloore gi ñu fa def c'est un peu qui a fait que nous ne sommes pas qualifiés en huitième de finale Je me rappelé euh, euh, alors euh, Abdoulaye booy xool performance yooyu performance, est-ce que yow avez nga ci Sénégal yi nga xam ne nañ ne Sénégal war na coupe du monde. Quel du ko programmé amul pays bu la naan maa dem coupe du monde da ngay dem rek étape après étape mais da ngay dem ba que attention ñun léegi fi les ambitions à la hausse on peut relever la tête et le cœur comme ñu ngi toll fii soo ce booy jóg sa kër ne ngi coupe du monde rek te li daf koy daf dafay trop li du ko gis daf koy trop da ngay dem rek di étape après étape surtout que ñun nous avons le beau rôle kenn du pronostiqué euh, tout le Sénégal vous donner un exemple suñu une qualification à la coupe du monde 2002 C'est une première coupe du monde gisa bi ñu présenté poule bi amul sénégalais bu qualifié on est avec l'Égypte avec l'Algérie avec le Maroc jamono jooju nous ñëpp dem nañu coupe du monde ba def de bons résultats avec la Namibie on était cinq Ordre de performance on est 4 quatrième sur 5 ci ordre performance commencé nañu jouer qualification yi kenn waxul waxu qualifié à la coupe du monde dañ dem ba à trois jours de la fin ñu l'année eh mais attention mais xool leen programme bi des ñun mën nañ qualifier ci la ñu soog a commencé à jouer pour la qualification bi ñu soog a commencé à jouer pour la qualification booba ñu ngi fekki Maroc àllale euh, à Rabat def ak moom 0-0 foofu dugal ko sax bi bu baax arbitre bi accordé wu ko dugal ko sax bi bu baax waaw Rabat Maroc la fait fekk Rabat nul ak gagné au retour dem Namibie gagné 5-0 tout en jouant à 10 Qu'est-ce que bi ñuy gagné Namibie suñu match jeex na Algérie Égypte continuent de jouer euh, bi mu jeexee ci li ñuy a wax parce que Algérie Égypte dañu match avait besoin de gagner alors je vais wax avancer c'est comme ça que lay est ci quand tu es challenger parce que tu sais que le gaaw a le droit mais ki nga naan demal rek loo am jël demal loo am jël kooku euh, dana woyef ci moom euh, dana nekk lu nga xame ni amul pression te ñun Afrique comme kenn sénégal ñu gagné coupe du monde euh, dañuy dem évidemment bu njëkk nit ñi dañu doon xool comme étant cendrillon légui le regard sur les africains a changé tant mieux parce que ñun ñoo fa jaar ñun Cameroun ñun Ghana ñun Sénégal ñun ñoo fa jaar il nous respectent un tout petit peu plus ça peut toujours être un atout parce que ki la respecté déjà mi ngi xaw mel na lu ragal te bëgg ñëmé lolu moy respect mi mel na lu la ragal te bëgg la ñëmé tant mieux et li m'a dit il y a des moments où un bon discours fait jouer un bon discours euh, jour bi li mu mujj dégg avant muy wacc ci terrain bi li mu mujj dégg à l'image de ce que Blaise Diagne avait dit à Louis Mbarik Fall qui est champion du monde en 1922 à Paris euh, à Colombe bi Blaise accédé accès di députés il ko bëgg à ci loge bi ñu non la loge bi parce que sénégalais la a ni est di titre champion du monde du sénégalais eh, ah, Sénégal Il a ngi lay eh, parce qu'on l'appelait Siki Brésilien, euh, Barthélémy dafa gees ba xaw a daanu parce que tour bobu gëj na ko dégg Sénégal mun ko ee eh, mbari xeexalan ah, Sénégal yëpp ngi lay deglu kon Blaise moo ko xeexloo. Blaise moo ci limu ko muju wax limu ko muju wax il a eu un début difficile ci combat ci ci titre champion du monde bobu dafa muju dor Carpentier mu daanu son manager jaaxle ci li ko Blaise mujj wax mom la wax ni léeg euh mom la ñu wax ni malade médecin bi day faj li mbok yi faj la ca dess

300 kilos dans 3 mètres 300 kg dans le jouer ak 1 mètre aussi 1 mètre Nous avons fait suñu ni nga comme yi ay pro capacité parce que kuy gagné coupe coupe d'Europe rek coupe du monde parce que euh, le salles du football dans le monde c'est l'Europe ku gagner gagné coupe d'Europe rek coupe du monde. Quand tu Dieng waaw man je may may ñëw ba léegi si mondial bi cette fois ci sur côté budget bi lay 14 milliards bi doon toll dem ko gisee. oui xam nga xam nga nit ku nekk dafay màgg ak soxlaam daa tollu jamono bo xam ni boo amee 10 000 francs da ngay kontaan boo amee 100 000 francs da ngay kontaan moom ngay Marcel, 14 milliards meuna nek nekk lu tuuti té je me souviens gis nga cette fédération a fait du bon travail a fait du bon travail c'est tellement juste mës Ben observateur vous reproché à la fédération sénégalaise de football reproché d'avoir mis les joueurs dans des dans des dans des installations qui ont ramené presque prince moo alors et ça c'est sénégalais Bolon yobon tu ci ou deux étoiles tu hôtel bu bon lañ leen yóbbu boo plus de cinq étoiles ñu ni mais ñii dañuy noos yaa ngi dégg yaa ngi dégg waxu gaa yaa ngi dem Bambula ana Bambula ba ah yaa ngi déplacé ay spectateurs trois cent personnes ci réew mu tuuti Sénégal qui fait partie euh, des pays peut-être les moins les moins lotis dans plusieurs domaines nee naa coupe du monde bi pour ñun euh, certes euh, la coupe du monde paye son nom parce que déjà boo qualifié rek daañu la jox xaalis mën naa coupe du monde boobu ngay dégg yëpp ay yooyu ngay dégg yëpp ci ay milliards xaalisu mën naa FIFA la parce que FIFA dana la jox près de la moitié pour que nga ñëw boo demee booy booy avancé di dajeeg lu ëpp liñ fi li li nga dajeel ba tax na da ngay màgg sa soxla di màgg mënuloo am ambition bëgg gagner coupe du monde ak 200 millions muy noonu. Je bien qualifié Caire 86 du dem en Égypte au Caire en 86 on parlait de 250 millions les gens trouvaient que de vrai, de bari oh, 250 millions au Caire Les 250 millions donc ils entre euh, peut-être euh, deux déplacements voire trois déplacements Alors, avec tes ambitions on se rendra compte que 14 milliards du don dara y a déplacé 300 sénégalais et c'est bien c'est bien comme on dit parce que affaire bi ñoo ko moom li ma tudde événement la bas nous ni euh, ñoom nous ko jëli nous, Sénégal muy spectateurs yi muy footballeurs yi ngay inviter seeni parents et cetera 14 milliards yi ngay dégg ngi noonu déjà 300 personnes boo loon jéemoon jël à charge man dem naa Qatar dem naa Qatar. Euh, sur invitation de, Lamine, de mon ami Lamine Savané, euh, que je remercie au passage. Fala Dajek Pelé euh, ci installation yi Coupe du Monde bi jëm dem naa Pelé euh, sur invitation de de Lamine Savané parce que bi mu le ni dana fa dajeeg Pelé xale bi dafa dem ci lay mu invité ma alors quand tu vois tout ça y a un petit paquet d'argent pour juste pour le séjour mais c'est bien c'est bien que tu aies 14 14 milliards. Euh, plus tard, ce sera 100 milliards. Euh, cela voudra dire que nous sommes selon les besoins de l'heure euh, et peut-être, comme on dit, des, des, ambitions sont à satisfaire. Voilà. Alors, euh, pas bien, on va aborder notre deuxième sujet avec Abdoulaye et on va rester sur, l'international pour aborder le sacre du Ballon d'Or. C'est déroulé il y a de cela quelques, jours. Euh, alors, euh, Abdoulaye Yaou, le sacre de, de, de Benzema, euh, selon vous, est-ce un sacre logique Vous savez, le monde nous en football, le monde entier. Nous en football. C'est que nous avons ñi voix au chapitre nous sommes footballeur yi en un mot li football metti trois footballeurs les da ngay croiser les bras dañ lay croiser loolu les bras ñi décider pour yow duñu footballeur c'est ça le drame yow ma ngi fàttaliku bi Allemagne gagné coupe du monde Gerd Müller la réception ba mu gedd dem yonam Allemagne dafa gagné coupe du monde 74 Gerd Müller ñew ba ci réception bi gedd dem yonam pourquoi il s'est rendu compte que dirigeant yi dañu indalé seeni épouse ci réception bi nous ont yi joxuñ leen deuxième carte pour que ñu indaale seen épouse Nous ñoo gagné coupe du monde les dirigeants yi ñëw Coupe seen Monde. soxna ñom seen soxna ñu du leen ci kër ga mu quand il l'a dit l'Allemagne était choquée alors bi aussi moo affaire du football des non footballeurs ñoy décidé pour des footballeurs c'est injuste Ablay. quand j'entends euh, ay journalistes ñoy voter le Ballon d'Or France Football, France Football Journal, France Football qui saisit des journalistes qui votés. Mais après, il y a une erreur qui se qui glisse, qui se glisse. Qui le sujet. Le footballeur, spécialiste du football, Mokoman du journalisme professionnel. footballeur professionnel. et pourquoi le journaliste décide-t-il pour le footballeur dans la formation du journaliste école école journalisme je l'ai dit une année à mon professeur en France à mon école de formation formation entre guillemets parce qu'on était déjà sur le terrain je lui ai dit une fois à l'école ce que vous me faites faire je ne touche pas chez moi ah ce que vous me faites faire à l'école je ne touche pas chez moi ma présence Madame, li école parce que l'école du école journalisme le tronc il est comment on ne parle que journalisme on ne parle pas autre chose. ma moi ma présence à Radio Sénégal elle est essentiellement sportive toute la semaine tout le mois toute l'année je suis le chef du desk sport de Radio Sénégal je fais du sport toute l'année De petit Il me dit, bon, mais ce que ce que tu me dis, c'est intéressant, parce que maintenant, il est temps que nous sachions quoi faire avec les étudiants quand ils nous arrivent. C'est parce que la presse a un pouvoir presse dafa am pouvoir jël tu es journaliste Les yow le journaliste tu décides pour Roger Mendy pour Oumar Gueye pour les Racine qui ont usé des maillots et des crampons sur le terrain Roger Mendy premier sénégalais champion finaliste d'une coupe d'Europe Oumar Gueye capitaine du PSG en 85 du PSG du champion de France toi nga génn sa école journalisme ñëw wax di décider pour lui di voter pour lui alors que tu n'as jamais touché à un ballon de football Moi Indy... résultat yu y yi nga ballon d'or ce sont des noms qui n'ont des gens qui n'ont jamais milité au foot qui n'ont aucune expérience du foot du voter Moi, il y a eu des votes ridicules dit-on ci ballon d'or alors comment sauver le ballon d'or c'est demander aux footballeurs de traiter du sujet les anciens footballeurs Bayern anciens mën nga leen jox benn voix joueur équipe bi voix les footballeurs du Bayern benn voix ah, les anciens du du Bayern benn voix tu fais la même chose à Liverpool tu fais la même chose au Real Madrid ay spécialistes des produits du football di voter pour le football le ballon d'or à 66 ans benn gardien de but 66 ans ñaari défenseur Mathieu Samar ak Cannavaro je sais que am na défenseurs yu fi jaar yu ko mérité mais ki xamul football ki dugal bii rek lay gis ku xamul football ki dugal bii rek parce que la performance du buteur est affichée ba les but on met 1-0. Euh, euh, Abdoulaye je euh, vais ma jox transition pour ma mën dugg si benn question boo xam ne bii poser justement est-ce que jotul tamit si ballon d'or ñu indi luy luy nu rek euh, euh, parité naka wax noonu pour mu gëna euh, yomb waxuma parité benn goor benn benn jigéen dedet xam nga lan lay wax lan la tuddee parité au poste manam si si podium bi buñ né par exemple le premier quand on choisit un un attaquant deuxième bi nañu choisir un défenseur ou un un gardien etc. man man lay laay euh, parité ndax bo xolé ballon d'or euh, Abdoulaye Diaw premier bi Kalle, Karim Karim Benzema deuxième bi Sadio Mané troisième bi Lewandowski trois attaquants. kon jotna parité boobu ma euh, bëgg euh, Abdoulaye euh, ñu indi ko Ballon d'Or bi le législateur bi def il y a plusieurs années je tenais le même discours au lieu du Ballon d'Or moi j'ai pensé à l'équipe du Ballon d'Or onze du Ballon d'Or le gardien à l'ailier 11, le meilleur gardien de l'année, euh, les meilleurs défenseurs, euh, latéral, euh, libéraux, sopper, milieu, attaquant. L'équipe du Ballon d'Or, Morgan Juste. Parce que le Ballon d'Or a été dominé ces dernières années par Cristiano Ronaldo et Messi. Mais nous jouons gardien de but du goal. Le gardien de but fait partie d'une équipe de football. Nous commençons à rectifier d'ailleurs erreur parce que l'équipe de femmes d'autres prix spéciaux, notamment euh, celui du gardien de but. Le gardien de but fait partie de l'équipe de football. C'est un footballeur. Pourquoi le sortir de l'équipe de football Un gardien l'a été au début des années 60, le, le russe Lev Yashin. Défenseur, il y a des Baresi, Maldini, et tant d'autres, Roberto Carlos, et tant d'autres, mais ñi voté té xamuñu football dama koy wax journaliste xamul football profession la xam le football xam na profession c'est tellement juste que le journaliste li mu soxla ci football daf ko war laaji footballeur ce n'est pas pour rien que gisoo li jigi ci ki comment se fait-il que Patrick Mboma et Habib Bey, subitement que des spécialistes incontournables fu ñu génne produit école école football produit pratique la ñu génne les journalistes ont besoin de moi je suis footballeur moi le sujet je le traite en footballeur man Nena Benouaï, je au Sénégal en première division man Mon sujet je dama traite en footballeur comme beaucoup Alpha Touré Defone, wala Louis Camara ou Louis Gomis Beaucoup naa génération joué ak je traite le sujet en footballeur quand nous allions à notre première camp en 65 j'étais présélectionné donc ba le sujet c'est ni que Patrick a di traité Avec Abibé. Non la koy traité parce que footballeur là avant eux ñom ñu nek footballeur après moi continuer du traité du sujet kon football bi li kay gëna a modi khalis bi parce que khalis euh, bu bari bi fay jox pouvoir trop ñi koy indi ñi indi khalis bi daañ dem ba déshabiller une équipe les les gisoo équipe yi léegi ñu sol ñi ngi sol ak ñi ngi sol couleur inhabituelle khalis bi la parce que sponsor bi mo bëgg mu solo li mom la wax ni la tant que footballeur yi ñi ngi koy traité dara du réer dara du yàqu li nga wax tout à l'heure tendre vers l'équipe du ballon d'or dana mos a ñëw hein, parce que de plus en plus ñu ngi rendre compte ci ballon d'or bi dañuy juum duñu élire les meilleurs footballeurs dañuy élire les buteurs ñi dugal but la ñuy élire gisoo euh, barki démb dañu am ñaari exemple yu ko étayé en deux finales de coupe d'Afrique. C'est deux finales de coupe d'Afrique. Il y étayer am euh, la thèse selon laquelle les performances défensives sont reléguées au second plan on a gagné Égypte en finale de coupe d'Afrique, tiré tir au but avant Sadio Mané di am double gagné Edouard Mendy a arrêté penalty Edouard Mendy su arrêté wul Sadio Mané du am gagné. Edouard Mendy so arrêté le penalty Sadio Mane doit am dougal gagner... il a fallu que Edouard le penalty pour que Sadio Mane am dougal gagner... donc en arrêtant le penalty de l'Égyptien c'est comme si Edouard Mendy avait fait une passe décisive à Sadio Mane... Sadio Mane doit comme mu dugg ni Sadio Mane... bon Benen, foot de plage Nous, Égypte dañ tiré tir au but avant Nino Diatta di am bal bi muy pour que foot de plage soit champion d'Afrique mais euh, Seyni Ndiaye le gardien du but sénégalais a arrêté un penalty bi mu arrêté penalty ki le Nino Diatta am dougal gagné ñu ni Nino Diatta faté les gardiens motax ballon d'or du gaaw venant de quelqu'un qui ne marque pas de but alors que arrêter un penalty mo gëna a fait penalty arrêté un penalty moo gën a jafe dugal penalty bon gars ñaa ngi ci commencé di conscient moo tax ñu ngi rectifier léeg-léeg yaa dégg passeur bon passeur ñi ngi ñëw li nga mujj wax nii sama xel mës na ci dem ni ballon d'or jox ko benn nit mais kii ballon d'or dugal ay bu sax dañ ko ko paas Benzema su fa suisse Junior nekul au Real du dougal so xolé trois quarts butu Benzema yi c'est Vinicius Junior ci classement bi ma nga septième xaw ma neuvième Suisse, Junior Et Benzema xam nga point la Benzema est à 500 et quelques points Sadio mi jël deuxième est à 100 et quelques points plus de 400 points le parce que ñi voté journaliste yi pas meilleur match c'est à voir euh, le football est envahi par comme on dit euh, l'argent et l'argent finit par commander. Les journalistes ont dolé, dollars, ont pouvoir, et ce n'est pas seulement au football que nous avons dolé. Ils font et défont. Les journalistes, si vous êtes président de la République, c'est un pouvoir. Senghor avait bien raison de dire que le journalisme est un cinquième pouvoir. nous am dolé. Tu am dolé, nous avons avancé de faire des De faire des au football. Euh, nañu bàyyi di voteloo journalistes yi tey voteloo footballeurs yi ñu ngi fi fees dell les anciens footballeurs les anciennes gloires euh, les arbitres et tout même arbitres même arbitres da nga leen di parce que arbitres yi am nañu bëtu sélectionneur et autrement ils peuvent te dire le joueur le plus fair play et cetera et cetera ñooñu ngay voteloo te ñooñu ñëpp font partie de la famille du football. Alors, euh, avant nous euh, un peu sur le football euh, local, Coach Papien, euh, Donc une question sur, le, question, sur le ballon d'or. La question que moi, euh, mon appréciation, c'est euh, le ballon d'or Sadio Mane, votre position On l'a presque traité. On l'a presque traité. Sadio Mane, deuxième. Moi, je dis, c'est bien. C'est bien. Pour la première fois depuis Georges Voy à 95, un Sénégalais nek dans la vitrine du Ballon d'Or deuxième nek dans la ba pare nag am ba ñuy contester cette deuxième place parce que man intrinsèquement man boo ma laajoon diggante Sadio Mané ak Benzema ku daax football man la Sadio Mané ka daax football Sadio Mané moo daax football Benzema Sadio Mané li muy def dans son port du ballon Benzema du ko def mais Benzema il est intelligent dafa xam lu mu mën ak lu mu mënul il te donne le ballon il va se replacer Les ñoom ñaar bu ñu bokkoon attaque Sadio Mane day nekk pourvoyeur Benzema bu ñu bokkoon équipe Sadio Mane daf ko daal taxawal ma jox Le ballon bi nga ballon bi nga ko dugal ni ko Vinicius Junior di defal non la ko Sadio Mané di defal Vinicius Junior ak Sadio Mane yëpp ñu tax football Benzema moo euh, deuxième place où Benzema bi baxna pour lui baxna pour l'Afrique parce que da fay a tendre vers l'évolution de l'injustice du règlement de l'injustice bi ñuy vivre nous dañuy gën di avancer rendre compte que le vote n'est pas bien fait parce que vous ngi qui ku nga xamee ni profession moo fa indi du expérience pratique yow euh, euh, Roger Mendy je tout dit tout à l'heure Oumar Gueye Sen, Jules Bocandé dans ñëw ci jeune journaliste que que penses-tu de mon match c'est aux journalistes de poser la question parce que les journalistes, ils ne li mu le ci ci football alors boo toogee amee sa micro di ko wax wala toog ci sa télévision di ko wax wala amee sa plume di ko bind te nag footballeurs yi aussi dañuy ragal